gi salaamaaleykum. maa salaam père ngi lay fay. mais nag lamb ah? ñun lamb la yam waxuma dara kii bëre suma rakk la suma doom la mu seex super jamono defe naa ne man ci tax mu gën a mu tax mu bëgg bëre ci laa bokk am naa fi ay rak mais ku war a faram su ma joxee poussé bi warul réer ci man fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm kon ku bëri dama war a sa ginnaaw loolu moo war sama teewaay mais nag xam ne man daam nu may ñëwee ci làmb mënuñu wane lépp ndax ma ñoo ne si contrat. mais nag sa contrat nga nekk te yaa boo ma gisee xam ne maa ngi waaj bu baax te xam naa ne allez boo gisee am na retour wax ji bëri na mais yàgg-yàgg fii la ñu mujjee waaw wax ji bëri mais léegi-léegi ñu ne arbitre léegi mu sifflé bu boobaa ñu xam këla kii kii këla mer kii kii mais guy lii nga def nii làmb dafa namoon lii ambiance bi nga andi tey xëppoo suuf si si lan moo la poussé à nga def loolu suma rek Cheikh Super Diamono su ma rakk la kenn xam na nu mu mel ci man man ma yoroon pousse bi kon du ma mu réer mu gestu gis rek loolu am na lu mu yokk ci moom. waaw moo tax ma ñëw tey ak dooleel ko bu baax a baax tey incha allah yàlla na ko may ndam. non lu lu mu jël rek am na des yaram dafa yaru Cheikh dafa yaru xam naa dara am na ay rek yu bari ci école bi mais tey moo xewlee ñëpp ñam combat ci école yàlla yàlla may ndam mais moom da cee ci man moo tax. mais fu mu toll. mais sa entraîné guñu entraîné ko fi toll nii. non ent wallaahi entraîné gu ma malal mii moo ma yor te billaahi billaahi moom dama bay entraîné gu ma des na lu bari parce que combat bi ma jël moo tax ku ma ko yombal nag may nax. mais guy gi wóor laa indi. dañoo gis adversaire boobaa léegi moo ngi prouvé di def ay performance kenn gisagu la nga ne entraîné gu loo. looloo baax nag muy def loolu di ko ñaan yàlla li muy def lépp yàlla may ko ndam mu ñëw fii ma daan ko ci ay minutes incha allah. guy gi loolu du yomb de ni waxee ni yombeewul noonu de. képp kum dajeel ci MMA yàlla na ko yàlla may ndam mais bu ñëwee fii incha ma daan ko loolu rek la international la kenn wérantu ko ñëpp xam nañ maa ko mayoon chance mais fi na may chance gi sax feeñul lu waxtu ñu waxee may chance li ñuy xaar abdou wàcce xaar mu xaar ma man maay ñëw lan lañ mën a xaar ci yenu doo mu daanu wala lan fu ma ko jàpp mu daanu loolu moom guy gi Père Ousmane nangu bi maanaam kii du ma wax du ma wax moom lu muy weddi sëñ Modou mi tëgg combat bi sama set combat benn année moo ko tëgg te yëpp ci loxoy kii lay jaar te man bu mu ñëwee dama la yenu dama la yenoo kon bu mu ñëwee bu ma leen nee bu ñu jàppantee mu jeex bu ñu jàppantee mu jeex te bu bëggee ma jox ko benn tànk mu jàpp ba mu dëgër mën a ko bëreel. déet guy gi déet guy gi. nen daa mën a def loolu. daa a bëre. bu arbitre sifflé. Sénégal gépp nangul nañ ko bëre naa ko mais est nangul na sama nangu bëre sama mën a bëre nangul ma bëre nangu naa ne mun naa mun na maa daan est ce que nangu na mun na maa mën naa koo daan nangu wu ko de ba arbitre sifflé. kon daal mën nañoo gis guy gu bu bees taa ba arbitre sifflé ba arbitre sifflé. baax na kontaan nañ ci yow. ñoo